mais ci loo nekk mais ci ci belle comme tey ngay maye sa doom laa ko mën a wax. ndax ku ku la xam-xam ne euh, sa doom la sa rakk la lépp la ak yi ki ko ah. du laa fi rakk ah. laa fi ki sama rakk la. parce que yaayam mooy sama première njëkke. ndeysaan tàmmam man mooy sama première njëkke ba pare nekk sama yaay. Ah, caana bi sama sœur Mbaye Dieye moom ñëpp xam nañ diggam ak sama sama borom kër donc dama fi ñëw ñaari ñaari yoon ñaari cër sama cëru bopp ak sama cëru borom parce que dafa waroon a ñëw waaye dafa ñëw ba Sénégal ñu woo ko ndeysaan liggéey mu dellu waaw d'accord daal leen koor a ngi tukkal jamono ji rawatina clip bi ko tuddee <laughs> waaw kontaan ah comme euh, man moom mais polémique clip bi ay dara waaw polémique bi bari na man dama mujj ko mais bon <laughs> mais bon mënoo si dara seen wàll lañ nañu influenceuse ku ne génn nag ñoo yëpp mooy dàllin koor ñu la mais nu mu ngi dundee kii ko man dama woon que du ma si wax parce que je pense que ne man dépassé naa étape boobu mais étape dàllin koor fi mu toll loolu la suñu yaay yi doon ci biir ah, ci euh, kër yi donc néewuñu ñun dañu valoriser loolu ba nit ñi di ko dund ci seen nit kër non koy dañuy wane mais pas du souffrance parce que bu njëkkaan maire yi ngeen dund seen sëy tey je pense que te man mën naa waat ne ñi génn ñëpp di wax ñi toog di wax yëpp seen yaay yi dund nañ fii ci seen affaire avant mu من بها كتب على